di jaajëfal Mawlana Cheikhul Xadim radiallahu anhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi di leen ziyaar bu baax a baax di leen baal xaq di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla boole baal di leen ndokkeel ci xew-xew yi ñu génn te mooy shahru ramadan bi ak iidul fitr bi di ñaan yàlla bu defal ñuy fekkukaat yu baree bari di ñaanal sëriñ Muntaxa al xalifatu am li taifati muridiya suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu it lañ koy ñaanale mboolem njabootu sëriñ bi di ko ñaanal ki nga xam ne si tey moo toog jataayu sëriñ Mbàkke Kajoor te mooy sëriñ Maam Balla Mbàkke di ñaan yàlla suñ borom yàggal ko fi lool ba yi nga xamee ni si moom la naal ngir liggéeyal ko maamam sëriñ Mbàkke Kajoor mu àggale ko ci anam gëm gën a rafete waaye duñ fàtta duñu fa duñu dañ mukk di jooy ak di fàttaliku suñu jàmbaar yi nga xam ne daaw ci heure bii ñun ak moom ñoo àndoon ñoo àndoon màggal bi nekkoon ko jàmbaare lool ci toolu sëñ Mbàkke Kajoor bii nekkoon ko jàmbaara lool itam ci yoonu murit mooy sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo ñu daddu bu yàggul nekk koo xam ne si diir bi mu nekkee ci xilaafa gi yàggul waaye ku ne xam na ne liggéey na ci tool bi liggéey bu am solo lool kon kooku duñ dañ mukk di ko fàttaliku di ñaan yàlla suñu borom yokk yërmandeem waaye yokk ngërëmam tamit te taam taasuñ fi barkeem gannaaw loolu nag xam naa ngir njëkkante ak waxtu yi rek dañu daal di dugg ci waxtaan wi waxtaan wi kon niñ ko xamee dañ cee ànd ak ñaari borom xam-xam ki nekk sama wetu ndeyjoor nekk sëriñ Baye Gueye Sill nekk al aalimu al allaama al muarrix al watani nga xam ne si ku xam la ci réew mi koo xam si soxlawul sax ju koy xamle nekk léegi yaakaar na borom Daaru Muxti xam lool istuwaaru yoonu murit rawatina lu aju ci Daaru Muxti ak Mbàkke Kajoor li ko wër kooku lañ fas yéenee àndal ci waxtaan wi ak benn borom xam-xam mooy al aalimul mawsuu'i rabbaani docteur Serigne Khadim Sill nekk ko xam ne si soxlawul ñu koy xam ne ndax nit ñëpp xam nañ xam nañ ay yëngutoo ki dalam lépp xam-xam na ak luy jëmale xam-xam ci kanam nekk koñ xam lool ci gox bi xam ko lool ci réew mi nag fépp ndax li ko waral mooy ay yëngatoom yépp ci xam-xam la ñoom ñaar nag lañ fas yéenee àndal ci waxtaan wi xam naa nag xam ne as rek ci ñi nga xam ne si ñoom lañ war a àndal mooy suñ bay gis la ñu xam ko lool mu gane fii àdduna ci Daaru Muxti defee fi lépp lu ñu fi war a def ci mbirum jàng boobu ba léegi nag dañul mukk di gastu xam-xam ak di tasaare xam-xam ci anam yu wuute nekk koo xamee ne si 1978 ba léegi mi ngi def ay recherche ci xam-xam ak di ko ak di bind def loo xam ne si mooy jëmale kan xam-xam xam-xam kanam kon sëñ Mbaye Guèye Sylla moomu rawatina ci fànn gi nga xam ne si moom lañu war a waxtaane ku ko xam la lool ku ci bind ay téere yu baree bari la naka noonu it loolu lañ wax ci sëñ Xaadim Sylla yi foog naa ne am mbind moom tasaaroo na lool ci réew mi ba bokk na ci téere yéen bind rek Ishkaaliyal Muriidiyya boobu nga xam ne si téere la bu am solo boo xam ne si ku ko liir dëgg-dëgg da xam dëgg-dëgg lan mooy murid bind na téere yu baree baree bari yoo xam ne si day jëmale xam kanam waaye day gën leeral yoo xam ne si dafa lantoon dafa lantoon ci yoon wi lantoon ci diine mu leeral ko kon ay yëngatoom ak i dalam yépp mooy lu jëmale xam-xam kanam gannaaw bi mu bàyyi ko ci am njàngam kon ngeen njëkkante waxtu wi rek daayira bi nañ ko baaxoo def at mu jot tànn benn tem boo xamee ne si dañ koy fàttalante suñu biir ngir mu nekk ab yóbbal boo xamee ne si képp ko fi ñëw boo delluwaatee da am loo mën a yóbbal moo tax tey mu tànn thème bu am solo bu am solo lool mooy mawdu bu am solo te mooy Mbàkke Kajoor ak yoon murit maanaam bu ñuy wax Mbàkke Kajoor al mahadu ta'zizi lil muridiyya ci gàttal rek mooy Mbàkke Kajoor ak yoon murit loolu nag dañ ko xaajoon ñaari pàcc te mooy an maanaam sos gi sos Mbàkke Kajoor ci jamono Sëriñ Mor Anta Sali ak Mbàkke Kajoor ginnaaw bi bi mu nekkee bi tàbbee ci loxoy sëriñ bi bëggoon koo waxtaane noonu incha allah àndi ceeg ñoom xam naa rek pour dugg ci waxtaan wi mubashara dañuy jox sëñ Baye Dieye Sylla mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara li jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi ki fi toog toogaayu ku tedd ki xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Muntaxa Bachir ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu ak ziyaara ci toog toogaayu sunu bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Basiru Antaña mi toog toogaayu borom Darul Mooti ñu ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp di nuyu ak ziyaara sang bu sell bi di sëriñ Maam Balla Mbakke Galongel moom mi toog toogaayu sëriñ Mbakke Kajoor nuy ñaan sunu boroom yàggal ko fi lool Mbakke te wéral ko ak njabootu sëriñ Mbakke Kajoor gépp ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal maamam ja mu liggéey ko ci sagoom waaye di ñaan sunu borom mu fayal nu jëmm yi nga xamante ni ñoo ko jiitu ci toogaayu Serigne Mbacke Kajoor tàmbalee ko ci Serigne Moustapha Parcelles di ñaan sunu borom yokk ay leeram te taas nu ci barkeem ba ca Serigne Amar Fall Mbacke njëkk wuutu sëriñ Mbacke Kajoor eh, xam naa kon damay jëfee ndigal ndax <laughs> eh, dama jàppoon ni mm, débat lay doon eh, waaye baax na <laughs> kon li ñu nu santoon rek muy Mbacke Kajoor berceau du mouridisme xam naa nu jéem a tënk xam naa li ëpp solo ci waxtaan wi sëñ Xaadim koy def ndax xam ngeen ni Mbàkke Kajoor bi ko sëriñ Mor Anta Sali sañcee yàggu fi wàcc ab liggéey ñibbi ab jana ba li ëpp ci mbooru Mbàkke Kajoor muy taarixu Mbàkke Kajoor gannaawam la bi nga xamante ni njabootu nga jox nañu barab bi sëriñ mbakke Kajoor yoonu murit juddoo fii ak la ci xew ba ñu fi sëñ bi jógee dem Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor nag buñ ko waxee dafay baax ñu ñëw ci ki nga xamante ni moo sanc Mbàkke Kajoor muy Sëriñ Mor Anta Sëriñ Mor Anta ñi mu bokkal mambal la sunu borom daf ko cee na kenn koo xamante ni doonte bokkuñu waajuru jigéen itam sunu borom da leen a boole muy rakkam déggaloon ko lool muy sëriñ Mbacke Ibra moom sëriñ Mor Anta Sali moomu nag ngir xamle ko moom maam Balla Aysa mooy waajuram maam Balla Aysa maam mooy waajuram bu dee ci wetu waajuram bu jigéen moom sëñ Mor Anta Sali soxna Anta Sali Kan mooy waajuram soxna Anta Sali Kan ku ñuy wax soxna Binta Seck mooy waajuram moom soxna Anta Sali moomu di waajuru sëñ Mor Anta Sali dana doy sëkk ñu ni moom ak soxna Géey Kan mi ngi waajuru sëriñ Sàmba Tukulóor Ka ak ñam ko bokkal ñoo bokk ndey ak baay ak seen càmmiñ yu ñuy wax Ahmadu Binta kon ci Ahmadu Binta moomu mooy nijaay yi jëmm ji nga xamante ni moo sañcoon barab bi di Sëriñ Mor Anta Sali Sëriñ Mor Anta Sali mu ngi feeñ ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk 1820 la feeñ ci Mbakke Bawol def na ak waajuram ñeent fukki at ak juróom-ñett ndax sëñ maam Balla mu ngi ñibbi aljana atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett 1868 la ñibbi aljana moom sëñ Mor Anta Sali nag fi mu dem ci réew mi ngir sàkku xam-xam bu ñu ko doon lim. duñ fi jóge bëgg ngee ji lool ci xam-xam am na benn administrateur colonial bu ñuy wax Sébatier am téere bu bi nu tudde ko le Sénégal sa conquête et son organisation ci biir téere ba mu ngay wax ni sëñ Mor Anta Sali ba mu wëree jàng gànnaar la mujjee ci la dellu siwaat ci wetu waajuram Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol googu fa la toog ba fi la sëriñ bi feeñe waaye xam nañu sëriñ bi bi mu feeñee ñetti weer rek la amaat Mbàkke Bawol bàyyi koo fa dem fekki nijaayam sëriñ Ahmadou Binte Kan mi nekkoon njaakaan ba mu fa demee ak daaraam nekk ak nijaayam ba daara ja demee ba màgg ci la ko nijaayam sancal ca xurwa bu waa kër nijaayam daan dem te sanc ba di wax ni ñoo ngi dem ca xuru mbakke wa loolu moo indi xur mbakke gi nekk ci wetu mbakke bool foofa itam fa la nekk am na ñu wax ni def na fa fukki at am ñu wax ni def na fa fukki at ak ñaar ñi nga xamante ni dañoo wax ni sëriñ bi atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom 1855 la feeñ bu dee date boobu la ñu jàpp kon sëñ Mor Anta def na Xuru Mbàkke fukki at ñi wax ni 1853 la bu ñu jàppee date boobu kon def na Xuru Mbàkke fukki at ak ñaar ci weeru juin 1865 soo demee ci téere bii ma doon wax léegi te Sébastier bind ko ma ngay wax ni tafsir ma ba jaxuba bi mu songee Mbàkke Bawol ndax foofu ñaari wax daf cee am dafa am nit ñoo xam ne dañoo wax ni tafsir Maba Jaxu Ba dafa bëggoon a créer un état islamique ba tax mu woo doomi soxna yi ñu fekki ko Saalum ngir mu aar leen ndax bëggu leen woon bàyyi ceddo yi di leen noggutu loolu moo siiw mais tubaab yi ñoom li ñu bind mooy tafsir Maba Jaxu Ba def leen a forcé maanaam sëriñ si demoon Saalum demuñu woon ci seen coobare ndax wax nañu ni ci weeru juin 1865 ci la Maba Jaxu Ba songu Mbàkke Bawol lakk dëkk ba wax na ni Euh, liet naay tafsir ma ba jaxu bi muy Lat Joor Demba War ak euh, Alburi Njaay ñoo jiite woon xare boobu ñu bëggoon yóbbu Maam Balla fekk na mi ngi ngay moom booba mag la ñu ni ci la ñëw nag Xuru jël sëñ Mor Anta Sali akuk njabootam yóbbu leen Saalum ñoom ba ñu dem dañoo tubaab bi dañoo bind wax ni ba ñu demee Saalum ñooro ga nga xamante ni bii mooy gëblëga di capital ba bàyyiwu fa sëñ Mor Anta Sali daf ko jël internet ko poroxaan mu nekk fa yor daaraam di jàngale di jàngalaale njabootu tafsir ma ba jaxu ba muy ñoom sayer mëti kon sëñ Mor Anta Sali def na juróom-benni at Saalum ndax ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci la bàyyi ko Saalum ñëw Kajoor dem sañ ci fu ñuy wax Pataar Pataar léegi muy nekk ci arrondissement bu Sagata euh, li may wax ni histoire dafa doy waar ndax tubaab yi loolu ñu wax ni daf doon forcer sëriñ si ngir di leen yóbbu Saalum ci lu ñu sëñ ta bañ man maa ngi leetar boo xamante ni sëriñ Pire moo ko bind le gouverneur Pinet-Laprade di sàkku ci moom mu dimbale ko ci Maba Jaxu Ba mi ko nar forcé yóbbu ko saalum maa ngi egg lettre boo xamante ni itam Pinet-Laprade moo ko bind Maba Jaxu Ba booba Maba jóge na mbakke ba songu Jolof mu ni ko maa ngi waajal ay soldaar fii ci Ndar te boo delluwaatul Saloum boo ñëwee ke sa tataja nga bay fekk kon ñaari version la ñii nen nañu dañu sëriñ si daf leen a woowoon ñu daje fa ngir mu aar leen waaye tubaab bi ñoom wax nañu ni daf leen a forcé woon ngir yóbbu leen fi nga xamante ni bii mooy Saalum kon ci 1871 fekk na rakkam jii mu bàyyee barab bi nga xamante ni mosuñoo tàggoo muy sëriñ Mbàkke Ibra li ma wax ni bokkuñu waajur wu jigéen waaye sunu borom moo leen boole woon jubale leen ba ñuy dem Saalum ñoo ko ànd bi ñuy ñëw Pataar itam ñoo ko ànd ba ab taawam mu tudde ko magam jooju di sëriñ Mor Anta Sali te mu siiwe ci sëriñ Amar Fall Mbakke wax nañu ni Pataar googee la feeñe nee nañ ma sax sëñ Mbakke Kajoor am na ñaari sëñ Mor Anta Sali bii sëñ Morane Sële ko tuddee boppam bii moo ko moom sëñ Mbàkke Kajoor moo ko tuddee sëriñ Mor ant Sëli kon pataar googu fa la nekk def fa juróom-ñeenti at yu bare baree bari fa la xewe ndax xam ngeen ni sëriñ bi bi waajuram di jógee Saalum daf ko fa bàyyi mu nekk fa ak sëriñ Samba Tukulóor Ka gannaaw bi la ko fekk si fii nga xamante ni mooy patar patar googu nga xamante ni taawub sëñ morant sëli fa la wàcc ab liggéey muy sëriñ Mbakke Anta te waajuram denc ko njaañu njaga foofe itam suñuy nopp dendanoo bi mu yoroon di sëñ di soxna jature foofe lañ ko joxee ku tedd ci xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba wax nii itam ni ak taawam di soxna Fat Dia la feeñee waaye fii la ko maamam Serigne Mor Anta Sali ferale kon euh, sëñ Mor Anta Sali def na juróom-ñeenti at Pataar ci la bàyyi ko Pataar ñëw sëñc pàkk bi nga xamante ni mooy Mbàkke Kajoor pàcc bi itam dafa am ñoo xamante ni dañuy wax ni sëñ Mor Anta Sali xaadi Lat Joor la woon ba fu Lat Joor mës a jëm daf koy yóbbaale loolu itam ñaari version daf cee am ndax muy tubaab yi muy sëriñ Mor Anta muy sëriñ Moussa Ka sëñ Moussa lan la bind dafa wax ni mbooleem Kajoor jiital ko def ko di moo raw ku teew ak ku ñëw ak kuy maadu kon sëñ Moussa Ka nee na sëriñ Mor Anta boroom xam-xam la woon boo xam ne xaadi la joj daf daan atte kajoor gépp tubaab yi itam loolu yi la ñu bind li ñu bind mooy Momar Anta moo doon xaadi kajoor xaadi ma jaxate kala moo doon xaadi officiel bu Lat Joor ndax am na yu dox diggante Lat ak tubaab yi bokk na ci convention bi nga xamante ni le 10 septembre 1879 ak le 12 septembre 1879 mu jëm ci mbirum raay bi ba gouverneur yabalee Boel Mogdad mu ñëw kër Amadou Yàlla ba ñu bindantee la ñu bindante ba noppi dafa wax ni ci teewaayu Lat Joor ak kaacheb Lat Joor xaadi officiel bu Lat Joor xaadi ma jaxate kala moo signé ci palaasu Lat Joor kon am na ñuy wax ni sëñ Mor Anta Sali xaadi Lat Joor la woon waaye tubaab yi de ñoom li ñu bind mooy xaadi officiel bu Lat Joor moo doon xaadima jaxate kala waaye sëñ Mor Anta Sali boroom xam-xam la woon boo xamante ni da daan atte Kajoor gépp sëñ Moussa Ka itam loolu yi moom la bind kon ci 1880 la bàyyi ko Patar ñëw sanc pakk bii di Mbàkke Kajoor foofu itam damay dégg ñuy wax naan diggante sëñ Mor Anta Sali ak Lat Joor dafa yàgg lu jiitu ñuy dem Saalum waaye loolu njuumte la sëñ Mor Anta Sali ba mu demee Saalum ci tafsir Maba Jaxu Ba fa la xamante ak Lat Joor Lat Joor jiitoo na ko fu am at ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent 1864 après la bataille de Loro ba ko tubaab yi bomee ca la gàddaay dem fekki tafsir ma ba jaxu ba am na ñuy wax it naan ba mu demee tafsir ma ba jaxu ba moo ko ni ngir ma fat la dangay ngay tuub dugg ci lislaam tafsir ma ba jaxu ba moo tuubal Lat Joor loolu itam njuumte la Lat ci lislaam la juddu Lat Joor longoor la jànge alquran moom ak tafsir ma ba jaxu ba Longhor la ñu jàngee alxuraan doonte tafsir ko mag te en 1882 bi nga xamante ni la mu nangu ca raay ba gàntal na ko au mois de décembre 1882 la euh, tubaab yi waajal ab xare ngir ñëw teggi ko ci nguuru kajoor gi capitaine Dupré ma nga xamante ni bi moo jiite woon xare ba maa ngeeg ay mbindam yu muy bind ni bi mu ñëwee bi ñu ñëwee fekk ñu Lat Joor génn na Kajoor ba dem moo dugg kër Lat Joor wax kër ya fa ngay jaar ak na mu demee ba wax ni Lat Joor am na jàkka ju muy jullee ci biir kër gi waaye defar na jumaa aussi ci biti ngi nit ñi di fa jullee loolu moom Tuubaa ba ko bind te bu ñu waxee ni euh, euh, maanaam tafsir moo ba moo ko tuubal loolu erreur la mën nañoo wax ni pratiquent ñi doon jullit te ñu julli duñu woor dañoo bari Lat Joor daal bi mu demee ci Maba ba mu fay jógee diine jeexital na ci moom ba bi mu ñëwee li waraloon jafe-jafeem ak ñoom dem ba War Sàll mooy ñoom dañuy wax ni Lat Joor léegi doomi soxna yi la gën a jox loxo ñoom la gën a jubóol ku ci mel ni euh, sëñ Adama Gueye ak euh, ma sekk baawoo ñoom ak ñooñu loolu bokk na ci ne woon jafe-jafe diggante Lat ak euh, dembawar War Sall sëñ Mor nag bi mu sañcee fii yàggu fi am na ñu wax ni ñetti at la fi am sëñ Moussa Ka loolu la wax waaye am na ñu wax ni matu ko ndax am na ñu wax ni ci weeru décembre 1881 ci la ñibbi aljana foofu itam mu am lu fi jara seetlu ndax nit yàlla yi sunu boroom daf leen di xamal lu dikkagut kenn ku nekk xam na ni Daaru Salaam Sëriñ moo ko sanc waaye moo ko rafaatale maam Cheikh Anta muy boroom dëkk ba te sëñ Touba moo jógee Mbàkke Bawol sañ ci Daaru waaye maam Cheikh Anta ma mu ko rafaatalee muy boroom dëkk ba tey moo tëdd Daaru Salaam Mbàkke Kajoor gii jëm bi ko sëñ Mor Anta Sëli sañcee te xam ni naru fee yàgg te am yéenay dëkk bi doon dëkku rakkam ji ko déggal di sëriñ Mbàkke Kajoor su fekkee waxu ko woon ak njabootam itam lu mu façon yéene la ba moo tax bi mu làqoo fekk sëñ Mbàkke Ibra moom dem na ci ay nijaayam fële ca ndal la gis ngeen la ci sëriñ bi daj yónni fa borom daaru mooti ñu gàntal mu demal boppam ngir jëli ko ba mu ñëw mu bàyyee ko dëkk bi tey kan moo tëdd mbakke Kajoor borom dëkk bi ka nga xamante ni moo ko sañcoon te waru koo moom ndax rakkam ji da ko yéene tey ma nga tëdd deq li ki mu joxoon dëkk bi di rakkam moo tëdd tey fii ci mbakke Kajoor kon mooy boroom mbakke Kajoor ndax Sëriñ Tuubaa du làmbatu la tax ba mu ko jëlee ba mu ñëw mu wul ko dama lay jox lew wi mu xamal ko ni ko man ko Mbàkke laa war a moom ndax moom la Maam Balla moomoon fii yéen a ko war a moom ndax seen waajur a ko sañ la ko Sëriñ Tuubaa xamal ko ni ko jox nañ la dëkk bi dëkk bi sa dëkk loolu daf doon yéene góor yàlla bu mag boobu di magam te rakkam ji déggaloon ko lool lool lool lool lool lool lool muy Sëriñ Mbàkke Ibra kon li ma wax ni nitu yàlla ay mbiram dafa doy waar ndax ki nga xamante ni bii moo sanc mbakke Kajoor te ba mu koy sanc da koo sanc waaye rakkam la ko yéenewoon muy borom dëkk bi tey rakkam joojee ak ak njabootam ñooy moom Mbàkke Kajoor boobu àddina di tukki moom moomay moo fi ak njabootam ñooy moom Mbàkke Kajoor boobu àddina di tukki ndax loolu nga xamante ni njabootu Serigne Touba gi euh, njabootu sëñ Mor Anta Sali gi def nañu ko ci atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak ñett waa juróom woowu mu fonkoon lool di sëriñ Mbacke Kajoor sëriñ bi dem na Gabon bi mu dellu bi mu wàccee Ndar. ñëw sànna jaar ci réew bi di tukki bis ni suba ñeenti fan ci aw kori la ñëw fekk fi waajuram woowee mu namoon lool lool lool lool lool lool sunu dogal na maa ngi doon bind ab téere ci tukki géej gi semaine bii la noppi maa ngi ko tuddee la vraie histoire de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon tukki géej gi ndax tukki bi def ci bari lu baree bari yu ci dugal yoo xamante ni bokkul bokk ci waaye jéem nañu ak ay preuve ak ay document ba def ci ab téere bopp insha rabbi bala yàgg danañu ko móol ca biir téere ba bi sëriñ bi jógee sànna di tukki ba ba muy dem Daaru Salaam maa ngi indi nga gi nga xamante ni bi ñëw na nga ne ko waajuram di sëriñ Mbàkke Kajoor kon sëñ Mbàkke Kajoor daf doon ku sëriñ Touba fonkoon moom it mu fonkoon sëriñ Touba ndax moom waajuram ñoo bokk lépp mu jàng li muy war a jàng lépp di waajur ci sëriñ Touba kon bi sëriñ bi wootee mënoon na ko bañ a wuy si te kon kenn du ko yedd damay wax ni sëñ Mor Diarra moo gën ci senegal ndax suñu borom daf ko nattoo loo xamante ni ci moom lañ ko mas a gisee mooy faw nga nungul sa rakk ji ndax ci yonent bi ba léegi ku mag yaa yilif waaye moom bi ko sunu borom nattoo ni ko kii kat sa rakk yéen bokk ñaari waajur jàngal nga ko sax waaye danga koy nungul dafa nungul dogal nungul Sëriñ Tuubaa xam nga loolu amoon na waaye ba fii nu toll nit lu mu baax baax baax baax munta baax ba magam nangul ko ñoo jébbal ko boppam kon loolu faw ñu xam ni sëriñ Mor Jaara tànneef gi mu doon tànneef moo tax mu nungul sëriñ Touba waroon nañ see mën a nekk ba jóge fii te du nungul sëriñ Touba ndax magama ñoo bokk ñaari waajur te lu ñuy jàng lu nekk jàng na ko waaye ba ko sunu borom nattoo loolu def ko nangu kon xam naa fi may daaneele rek jox sëriñ xaadim dafa am noonub sëriñ Touba bi ko gënoon a noonu ci noonu yépp ñu di ko wax Paul Marty Paul Marty lan moo tax mu doonoon noonub sëriñ Touba mooy moom bàyyam français la ndeyam français la ba li nga xam ne ñi ko jiitu woon naalan nañ ko la ca desan teñ yéene woon koo àggale sunu boroom sottal lu bari ca loola ci loxoom te nu ànd ko ak moom di delluwaat nag di fàttaliku ak ñaanal Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi mu ci wuutu yàlla yokk ay leeram fa mu nekk moom ak ñam fa fekk yépp ci ay magam ak ay way juróom di am mbégte nag ci jataay bii tey eh, di sant bu baax eh, sunu mag sëriñ Bay gay Sill ndax eh, li nga xam ne tey moom la ubbee waxtaan wi ak liñ ci war a toftal lépp mooy li nga xam ne moom la ñu alquranul karim ak cheikhul xadim jàngal ne bis yu mel nii nii lañ ko war a dundalee alquran wax na ci lu bare bari danañ koy faral di wax ci jataay yu toll nii wa zakkirhum bi ayaami llah inna fi salika la ay ayaatan bi kulli sabar shakur benn la ci yooya subhaanahu digle bis ak événement yi nga xam ne dafa jàll wala bis yi nga xam ne dafa jàll te benn bu ci nekk am ay événement historique yu ci jaar alxuraan ne nañ koy fàttali nit ñi ndax loola kat dafa nekk loo xam ne dañ cey mën a jële ay bind benn yu jariñoo ko ci seen dund ak seenu nekkin wala ñu jariñoo ko ci seen wàllu diine alquran dellu waxaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa kulla naqussu alayka min anbaai rusul maa nusabbitu bi i fuadaka wa jaaka fi asi alxaq wa mawida wa dikra lil muminina sunu borom wax yonent bi ne ko boo gisee ma di la nett lii yi ñu la jiitu woon ci ay yonent ak seeni jaar-jaar dafa am bind yu ma bëgg nga jële ko ci te muy lu gën a dëgëraat sa pas-pas nammat la gën laa dolli jom aku njàmbaar ci mission bi ma la jox ngir nga xam ne am na ñu ma ko joxoon ñu la jiitu woon am ñu ànd ñoom fañ jaar ba am ca ndam lañ ca am nga xam ko mu nekk ab yóbbal ci yow waaye ñi nga àndal itam ñoom it xam loola bàyyi xel ci loolu jéem a nag laxasaayu ànd ak yow am jom ji ña nga xam ne ña ànd ak ña la jiitu woon aman loola mooy la nga xam ne moo tax ma di la ko nettali Cheikhul Xadim it ñëw ci xasiidatu uqa xamal nenu kat warugar la góor yàlla yi nga xam ne dafay jaaran ba jàll te liggéeyal yàlla liggéey boo xam ne tax na ak seenu askan liggéeyal yàlla ci diina ji liggéeyal seenu askan ak seen pénc liggéey bu tax bi ñu fi jógee ba léegi kenn mënu leen a fàtte asamaaw yeeg suuf yeeg ñëpp a ngi leen di jooy nga ngir lañ fi daan def seen gannaaw kenn defu kenn defatu ko Cheikhul Khadim ware na ñooñu fàttaliku leen lu war waxit lañ ca war a jële waaye waxit bu ñu leen di fàttaliku nu ñu war nu ñu leen war a fàttalikoo mooy kaanoo ya kaanoo ibadan fan lañ féete woon yàlla ba am ci moom cër biñ am ci moom waaye fan lañ féete woon bindee ci ànd ak ñoom ba biñ fi jógee li muy yàgg-yàgg waxtu woo ko tuddee dënn yi rëcc ñu mel nit démb lañ fi jógee loolu lépp moom la jàngale ci biir uqa te mooy nan lañuy fàttalikoo nitu yàlla te mooy wax fi mu jaaran digganteem ak boromam ba am cër ba mu ca am waaye fi mu woon bindee fii ba am ci wàccuwaay boobu kon loola tey moom la eh, daayira bi nga xam ne tey ñoo saytu lii kon ci yoon woowu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax ne kuy fàttaliku bis yooyu euh, bind yi nga ci war a jëlee mu nekk yóbbal boo xam ne kenn ku ci nekk boo fi jógee dana la dana la soññaat euh, ci waar ak sas wi nga xam ne moom lañ la tobbil sëriñ bay wax lu am solo ci wàll kooku comme noonu nga ko waxee sëriñ bay loola mooy lu dëgg ca fa nga tàmbalee ca Lat Joor Eh, ca Saalum dëgg la ñi bind ci histoire ñëpp loolu la ñuy surtout jàngkati tubaab dañuy wane ne eh, bi mu koy fàtt moom Maba Jaxu sart ba mooy mu dugg ci bi islaam ci koo xam ne wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu ci lislaam nga judd mu mel ni nag digganteem ak sëñ Mor Anta Sali sëriñ Basiiru lam ca bind am na solo lool loo xam ne dafay dëggal euh, li nga wax la nga xam ne moom la Serigne Bassirou bind ak ñeneen ñi ci bind ci histoire wa moo di bi nga xamee ne nekk na fa ak moom euh, ci kippaaru Maba Jaxu dañoo wax ne Lat Joor dafa gisante ci Sëriñ Maam Anta Sali Eh, melokaan woo xam ne ci wàllu lislaam daf ko marqué wan lool lool ba li ëpp ci waxtoom yépp daf ko doon fréquenté ba mën nañu wax ne siñ Mor ant sëri nag comme ni ko junjee moo ko tarbiyee nag bu baax a baax nag ci ndax euh, donte lee jaaral na foofa yi nguur gi deman naa dema dem nag ba euh, tax nag ci wàllu pratique eh, dëgg la Euh, yëngatu àdduna bi ak yooyu lu jiitu muy ñëw foofu jaaral na digganteem ak yu bari ci loolu waaye Sëriñ Mor Anta nag moo ko delloo siwaat nag ah tarbiya ko foofa eh, tarbiya boo xam ne gën koo xemmam loo lislaam surtout nag lislaam gi nga xam ne ajut ci pratique rek waaye ci comportement ak jikko ak melokaan la ba loola tey moo ko marqué ba nga xam ne tey mu jëlan jëmmam ca yooyee jamono rek daanaka kilifteefu diine jébbal ko Sëriñ Mor Anta ngir doyloo gum ko doyloo woon ca loola loolu moo tax ba Basiiru wax ne moo waral bi nga xamee ne dem na ba bokk yi jël siwaat ko muy waral moom mu sàkku ci sëñ Mor Anta mu ñëw d'abord nekk conseiller loolu la jiital sax ci kii ne ko eh, ma bëgg fee ma jëm damaa bëgg ba ma demee rek danaa doxi waneen doxin wu bokkut ak ba ma doon dox parce que bëgg naa ba ma demee lislaam ak jullit yi ya nga xam ne tey ñoo ëpp ci ñi ma war a yilib danañ gis bopp seen bopp bu baax ci nguur gi ndax lépp loo xam ne lu aju ci eh, lu jaar seen diggante fas yéenewu ma caa wéyee sama xel fas yéenewu ma koo atteel sama bopp waaye dama bëgg rek la ca islaam santaane diine santaane ko te loola la yaa ma ca mën a dimbale nee na loolu la sàkku ci moom ne ko nga nekk sama conseiller waaye bu ñu demee itam foofee ma nekk lépp loo xam ne ab eh, ab béjoo la bu jaar diggante jullit yi eh, ma bàyyi ko sa loxo nga def ca la ca lislaam àtte ne suñu war anta sali sartul ko ca ne ko ah loolu de suñu ma koo bañ waaye nag daara laa yor di jàngale te nag daara moom mingoowut ak pay ndax nun nag ñi mën nañoo tul ba jaxasoo ak kenn duñu soppi waaye gone yi nga xam ne nag dañoo toll ci ñu yar leen bu ñu nekkee ci pays boo xam ne lépp fa nekk addunay kese yar leen ak jubbanti gi leen du jafe kon nag sart bi mooy ma dànd la man ak daara ji ñu wax ne kon loola moo waral bi mu nekkee kër Amadou yàlla ah, mu dëkkal ko foofu ci Pataar pour mu nekk loolu am nañ ci ay référence ci mbir yi na ci mbindi suñu mor xar yi yu mu jële ci baayam <coughs> ci diggante sëriñ bi ak euh, bi nga xamee ne sëriñ bi moom loolu dafa mel ni taxu ko woon euh, kii loolu te daa ko sàkku ci siñ euh, Madou Ndoumbe Maar ni mu xarit woon ak moom ngir ne ko su ma sañan kat nii nga def toog tey ba Dakar di jàngale sori kii daal su ma sañan nee ñu sëñ mbiri ne wax ne sëñ euh, tey ba Dakar daan wax Seex Xadim ne ko ah, sa bàyyi day jàpp naa ne kuréel yàlla li ko bind gënoo ma koo xam waaye la ma xam ci moom day la ngay ragal ci jàpp ne jeexiti euh, nekk nguur mën naa soppi dara ci moom bay boo sa xel dal ci ndax day maanaa la yàlla santaane yonent bi santaane ko mu ne amuna ko kenn mënta tax mu teggi tàggat ca loola rek na ko lii nag bu ma la ko waxee na na xel daal tey itam lee mu def nag fardu kifaaya la boo xam ne warugar la ndax bu ko nungulutoon lee tey ñoo ñuy ñëw di leen atte ñu di leen atte ci lu lu loo xam ne dëppwut ak islaam wala ñu di leen atteloo koo xam ne tey ragal yàlla ga nekk ci mor ant suñ mor ant nekk ci moom ba la neex buur képp lay lay def kon it bu boobaa musiba lay doon te boobaa kon eh, eh, eh, Sëñ Mor Anta Sali mooy kii ndax sàkku na ko ci moom nga xam ne kon loolu moo waral lan mu nongul ko loolu nee ñu ci bind yooyu bokk na ci ñaari fan la ñuy wax ne talaata la doon doon ak alxames benn bu nekk bu xëyaa pataar tàmbali wurdul xaadir yi yu mu daan def nee ñu buy agsi ci péncum kër ma kër Amadou yàlla day tal sante wirdu yu àgg mu julli ñaar rakka Eh, yu yoor yoor eh, ñeenti rakkay yoor yooram ba àggal def lawraat bi bu ko defee nag ña nga xam ne ñëpp ñoo fa am ay xadaaya ay mbir yoo xam ne ñu war a atte mu nekk ca bu jullee tisbaar foofu lay jógewaat ne ñu mës a jël jël bind waaye ñaari kon yooyu nag bind bi gën aw takkusaan la daan la daan jàngal loolu waaye la fa nekk lépp dongay daara yi mësuñoo jël jël bind loola mooy lu am solo loo xam ne kon day wane ne effectivement xaadi ji tubaab bi officiellement parce que Mamor Anta dafa nekkan conseiller di ko xelal ci wàllu diine waaye nag ca tund wooyee lépp loo xam ne moo fa nekkan ci ci ci ci ci ci loo xam ne eh, ay ay mbir la yoo xam ne tey ay ñu yoo eh, moom moo ko ca doyan mu di ko àtte te xam nga jamono yooyu itam eh, ci jëmmi buur yi même xa benn xaad yi daana am sax benn buur daana am ñaar wala ñetti xaad yi sax ndax xam nga charia euh, dafa xaw a pour kenn ku ci nekk domaine ba nga gën a spécialisé wu ñenn ñi ci côté lu jëm ci héritage miraas ñenn ñi nangam a nangam surtout nag sëñ Mor moom euh, sëñ Mor Anta euh, Lat Joor da koo defan daanaka da koo defan ab sëriñ defu jàppewu ko woon rek koo xam ne tey xaadi la buy àtteeg loolu waaye diir ba mu nekk nag foofa daf koo tarbiyee ci façon l'islam anam goo xam ne ba mu àgg ci ci niveau boo xam ne tey àggu ci woon ci lu jiit ba mu di ab sëriñ la ko defan Eh, boo xam ne daf ko def ko def ko conseillé moo tax eh, loolu mooy eh, effectivement li li li muy lu am solo mu mel ni nag comme noonu nga ko waxee histoire dafa dafa kii am na ñu wax ne waaye dafa mel ni xëy na ci biir yoonu murit moom li ci xaw a gën a yaatu ak ak ak ci ci ci kii bi moo di ñetti at yi muy mille mille mille huit cent quatre jooju la ñëw fii ba 1883 bi nga xamee ne ci la génn àdduna te même 1883 nga xam ne tey eh, ci la ci la itam eh, yoonu murit ñenn ñu ne 1882 eh, jëm 83 ndax yoonu murit li ñuy wax ne quatre ñii dañuy wax ne 83 am na ñu wax sax ne 84 la la la la sosu en tout cas at mi nga xamee ne moom la suñu war anta sëri génn àdduna moom ay weer. lañ ca teg yoon wi yoon wi sosu kon mu mel ni xëy na eh, ñetti at yi moom walla ñaari at yu yu yi moom eh, mel na ni loolu mooy li gën a siiw ci wàllu mbind waaye nag dafa nekk eh, ñaar wala ñetti at yu barkeel lool ndax dëgg la bi nekkee pataar lu bari ci ay doom doomi soxna yu baree bari ña nga fa woon waaye nag ñaari at yi nekk Mbàkke Kajoor moom dañoo wax ne nag mboolem nag lii ëpp ci ñi nga xam ne tey e, e, ñoom la bàyyee ak Seexal Xadim ci ay doom yi soxna muy ñeent fukki góor yàlla yooyu ñu tudd e, ñi jóge Kajoor ñu jóge Bawol ñépp nag fatra bi mu nekkee Mbàkke Kajoor nag ci la nag ñu baree bari nag ñëw ñëw ñëw fekk si ko fi bi mu nekkee Pataar am na ñu bari ñu fa nekkan waaye li ëpp nag ci daara ji nag kumbaayu daara ji dëgg dëgg dafa yàggut nag waaye mooy ndiir si nga xam ne moom la am Mbàkke Kajoor nag ndax ñu baree bari ci ay doom doomi soxna yooyu e, e, ci la ji lañu ñëw ndiir la soo xam ne itam e, li muy gàtt gàtt lu bari ci téere yi sëriñ bi yi nga xam ne moom la taalif ba sëriñ bi doon ko jàngal lenn ci ay doomam wax nañ ne ci barab boobu it la ko sëriñ bi taalife muy muy muy muy muy muy muy fatra boo xam ne bu am barke lool bi nga xam ne nag sëriñ bi Eh, ni nga ko waxee eh, sëñ Mor Anta Sali ndax dañoo wax ne xaw ba lu ci sa gaay yi wax waaye dañoo wax ne sababu bu ñëw Mbacke Kajoor dañoo wax ne bi nga xamee ne eh, Lat Joor jóge na toxal na toxal na pale bi kër Amadou Yàlla ñëw sugeer ah loolu moo waral nag te bëggut a sori sëriñ bi loolu mooy sababus nag mu ñëw ñaan bokk yi nekk fii ñu jox ko fi loo xam foo xam ne dana ci mën a nekk comme nam nekke woon fële ca Pataar e pour bañ koo jege lool waaye bañ koo sori sori boo xam ne itam da koy son déplacement yi da ko dana ko dana ko dana ko sonn muy e, diggante boo xam ne bu am solo la e, bu barkeel dëgg la barab bi lim fi amoon yaatu waaye barke rek mooy di am solo bi nga xamee ne nag nekk na fii Eh, ak sëriñ bi sëriñ bi di ko secondé di ko jàppale ci njàngale ni ak ci lu baree baree bari ci ay taxawaayam muy ci jàkka jàkk ak ci lépp loo xam ne lu aju ci eh, toppatoo gan ñi nga xam ne ak wéttali gan ñi nga xam ne ay góor yàlla lañ ay wëlëreem lañ yoo xam ne dañuy ñëw di ko di ko fekk si ba yàlla dogal eh, mu wàcc ab liggéey moom suñu war anta yi ña nekkan ca daara ji yëpp wëlbatiku ànd ak sëriñ bi sëriñ bi continuer di leen jàngal ci anam gëleen suñu war anta sët doon jàngale ba ci 1883 ci li gën a siiw nag ca la woote wooteem bu mag boobu nga xam ne nag e, mooy e, lii e, tax nag tey xëy na waxtaan wi tey bokk yi gën a <clears throat> bëgg nag eh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu fàttaliwaat ko bu baax a baax te mooy eh, taarixu histoire yoonu murit muy fii di Mbàkke Kajoor nga xam ne mooy lieu de naissance di muridisme ci boppam muy loo xam ne eh, am na solo lool ndax fii la sëriñ bi yëkkatee wooteem boobu wax ne képp koo xam ne danga àndan ak man ngir jàng ci anam gi nga xam ne moom la war ant sëriñ ak ñi ko jiitu woon yépp ci ay doom yi soxna daan jàngale te muy xamal la li nekk ci biir téere bi te bi fi suñu war anta jógee ba léegi diir boobu ngeen àndee ko ak man ci anam boobu ko képp koo xam ne loolu rek mooy sa yitte e man ngaa yeeweeku képp koo xam ne nag li ma jublu doy na la nga des ci nu ànd ci loolu noonu la ko tënkee muy nag euh, jataay bu am solo bu yéemee boo xam ne fan yi sax euh, téere boobu sëriñ bi wax léegi fan yi laa ko ci génne muy iskaliya ndax day euh, déclaration boo xam ne lu baree bari ci ñi nga xam ne tey bokkuñu ci biir yoon wi <coughs> eh, surtout te jubluwuñu yoon wi dañ ko interpréter na neen ba jot nañ cee na bind benn téere man ak Seexuna Abdul Wadood ci digalu suñu Mortada doon tontu lenn ci ay borom yi xam-xam yu ci def ay thèse doctorat ca Paris interpréter jataay boobee ak waxi sëñ bi naneen lu bukk ci fan yii ay bokk sàkkuwaat ci man ma delluwaat ci gën ko xóotal bu baax a baax ba téere ba bu sëriñ bi wax ma génne ko ci fan yii laa weyi korite gi juróom-ñaar mbir ya nga xam ne moom laa ca doon leeral mooy mbir ba ci jëkk ndax ñu bari dañoo wax ne ñoom ñooñu dañoo jàpp ne sëriñ bi kat bi mu waxee lool rek mooy dafa dagg jàngale ci biir programme am mooy dafa dagg xam-xam ci biir programme am ndax ñooñu ñoo nekkat ci daara yi way juróom doon jàng ñu ne dafa tëj daara ja eh, di weccee ko li ñuy tuddee tarbiya suufiya ñu dem cee dem a dem ba am ñoo xam ne sax dañ cee dem ba gën a sori ci loolu daal di ne loolu moo waral murid yi nangam nangam ci wàllu xam-xam ak yooyu te fekk na eh, Cheikhul Khadim dafa am pacte bu mu signé ak boromam te mooy yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy lan du yokk ca dara du wàññi ca dara waaye mooy fekk la ca bokkan nekk ca cosaan te càggante jullit yi tax ñu jële ko ca mu delloosi ko lañ ca dugal ca bokku ca mu génne ko ca loolu mooy yeesal bi bi mu ñëwee nag mu gis ne ci wàllu tarbiya ak taalim programme bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom subhaanahu jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti boole la alxuraan a ko wax wala si baasa fil ummiina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkiihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma ñetti boole la yàlla nee na programme bi ma jox yonente bi mu jaarale ci ba àggale nit ñi ci yàlla la ci jëkk programme bi mooy jàngale alxuraan mooy yatlu alayhim ayaatihi la ca topp nag mooy fexe ba ñuy dund alxuraan mooy yar leen muy tarbiya muy tarbiya nit ñi ci laggal seeni cër ak seeni jikko ak seen melokaan ci njàngaleem alxuraan ak melokaanu alxuraan mooy tarbiya bi mooy woyu sakki im wa yuallimu umul kitaab wal ikma nag mooy daaray xam-xam ja ndax alxuraan aqimu salaata wa atu zakaata lay wax na ngeen julli na ngeen woor waaye doo fekk ci biir alquran fenn fu ñu lay leerale ne kat julli yi nekk farata nangami julli lañ wala nangami rakka lañ wala arkaan ya nii la wala laa doo fekk ci alquran mu de détaillé yan alal lañ war a génnee asaka ak buñ ko génnee nuñ ko war a def ak fuñ ko war a jaarale loolu lépp tey alquran e, da koo lëm mais yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la wax ne wa alsana ilayka dikra dinaa tubayyina linnaasi si nuzzila ilayhim moo leen ko war a leeral kon ñu gis ne kon programme bi mu jox yonent bi mooy lan daaray alquran daaray tërbiye daaray xam-xam ñett yooyu yatloo alayhim ayaatihi mooy daaray alquran bi a chaque fois que sidna jibril ñëw wàcce aaya alquran wala ayatul quran yonent bi balaa am lenn lu muy def dafay dajale saxaaba yi ba ñu ñëw mu jàngal leen aay yooyu ña koy mokkal ci seen i dënn mokkal ko tey ku seen i dënn ña nga xam ne dañ cay dolli dem seet fi ñu ko mën bind ñu dem bind ko fa ba mujj mu wut barab boo xam ne tey fa la leen di dajale mooy kër arxam ibnu abi arxam ci màkkatul mu karam mu nekkantaaray alquran der waaye yëmut ca loola waaye wayu zakkihim daf caa boole di leen tarbiya ci wàllu jaamu yàlla ak di sukkandiku ci njàngaleem alquran di leen teqale ak mboolem jikko ak melokaan yoo xam ne dañ koo yore woon te mu dëppwu te mu te mu wuute ak yi ab jullit war a mu di leen defal li mu tasawifoon yi wax taxliya muy teqale leen ak lépp loo xam ne jikko ak melokaan la woo xam ne dëppwut ak njàngaleem islaam waaye taxliya waaye fexe ne di leen boole eh, di def ci ñoom ay jikko yi nga xam ne moom la alquran ak sunna jàngale mooy taskiya boobu wa yuallimu umul kitaaba muy daaree xam-xam ja lépp loo xam ne aaya alquran la boo xam ne dafa ñëw d def ay teqale ci jaamu yàlla moo xam julli la moo xam woor la moo xam génne asaka la moo xam aj màkka la moo xam eh, takkiinu soxna la moo xam eh, wàllu eh, muamalaat lañu ci wàllu wàllu nan la ñuy maanaam nan la islaam réglementé jëflante diggante nit ak moroom jullit ak moroom jullitam ci wàllu commerce yooyu yëpp tey di ay détails muy daaray xam-xam ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir madinatul munawara ak ci màkka Eh, mu doon ko détaillé saxaaba yi kon mu mel ni kon programme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla jox ko ñett la daaray alquran daaray tarbiya ak daaray xam-xam mais Seyxul Xadim nag bi mu ñëwee dafay fekk ne ñaari daara la fi fekk muy daara yu jàngale alquran di génne ay kaang yuy bind ay kaamil mokkal ko mokkali wu rafet ak daaray xam-xam di jàngal nit ñi mboolem téere yi nga xam ne ñoo aju ci xam-xamu diine moo xam fiq ak usulul fiq ak tafsir ak luxal arabiya lépp waaye lim fi fekkutul nag mooy wayu sa kii im mooy daaray tarbiya jooju comme nag dafa war a delloo siwaat sunna yonent bi sallallahu ci la ca la lañ ca lañ génne woon lépp mu delloo si ko te nag ñii mu fekkan ci daaray si mor anta sëli rapport bi leen boole ak Serigne Mor Anta Sali te boole leen ak moom gannaaw Serigne Mor Anta Sali mooy man mii bi ma boole wan ak sëñ Baara moom suñu abibu ba ma fay jàng ak sëñ Bas ñoom ak sëñ As Jaxate mooy bu jàng jotee daal ma dem lañal ko téere bi mu wax ma la ca nekk ma dem waaye la ajut nag samay jikkoog samay melokaan ak samay benke ñenke yañ war a jubbanti mayuma ko loo xam ne lu tax mu am sañ-sañub nag di lu ñutu samay mbir ak samay jikko ak samay melokaan ba lu ca jaarut yoon mu jubbanti ko naka noona eh, ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkan suñu war anta sëriñ di ay doom yi soxna loolu lañ seqan ak moom bu takkusaanee wala yoor yoon ñu andil ko téere bi mu wax leen la ca nekk bi nga xamee ne sëriñ bi wuutu na ko itam noonu lañ nekkee woon nag sëriñ bi nag comme nag dafa bëgg a delloo si man aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam il faut mu andi li may tuddee xatti atul man aju yee il faut nag rapport bi nga xam ne moo jaaran foofee mu mu mu andi rupture diggante ak moom pour mën a indi beneen rapport bu yees boo xam ne nag ah mooy moo koy may sañ-sañu nag mu mën a am ci ñoom euh, cër ak sañ-sañu mën leen di di ak di leen jaaral aw yoon loolu nag moo tax bi mu defee déclaration boobu loolu li mu ci jural mooy marque rupture diggante eh, méthode bi nga xam ne moom lañ doon jàngale ak bu yees bi moo waral bi loolu amee ba ni ko sëñ Mat Lamin Jóob li nga xam ne moo ëpp ci ña fa nekk ñëpp ñoom comme comprendre ñu loolu dañoo daal yeewi ba tuuti des sax ña fa des nag mooy ñeen fukki góor yàlla yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ne ñoo jaayante ak sëriñ bi te sëñ Adama gi jiitu ca naka noona sëñ Ibrahima Sarr ma euh, Massamba Diop Sam sëñ Dame Abdourahmane ba nañ koy limee euh, ba ñu jeex ba mat ñeent fukki góor yàlla ñooñee nag bañ jaayante euh, bañ bañ bañ fa desee nag la sëriñ bi delloo siwaat rek sunnatul mubaayaha te mooy jaayante wala jébbulu ñaari baat yooyu yëpp tey yu ñuy jëfandikoo la fan yi maa ngi koy leeral ci biir eh, escalier bi muy baatu jébbalu ci boppam eh, ndax ñu baree bari ci suñ suñu mbokki arabisant yi dañuy daw baatu jébbalu di jëfandikoo mu bàyyi xa jàpp ne eh, baatu jébbalu kat boo ko delloo ci arab arab nafsi la aslamtu nafsi nag boo ko waxee lillaahi ni nga doon xoolee maam Balla Aysa rek cër ba nga joxan maam ay sa moom nga euh, moom nga joxan moom cër bi nga xam ne moom nga moom nga joxan euh, bi nga joxan suñu war anta sëli moom nga jox suñ Mbàkke Ibra muy li tàmbali ci maam Mor Jaara ba ci suñ Masamba ak suñ Seex Absa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk na nga doon suñ Mor Anta Sëli ak cër ba nga ko joxan ba nga ko noppee gis moom nga jox suñ Mbàkke Ibra waaye nag Seexal Xadiim nag et daf cee rawati nag moom diggante mag ak siñ mbakki Ibra moom day mbirum yàlla e, moo xam ne e, Mbàkke Kajoor gii rek doy na ci ndax e, xam nañ ne sëñ Mor Anta Sali gannaaw bu fi jógee siñ Mor Jaara moo mooy mooy ab taawam kon mooy mooy kilifa njaboot gi yépp mooy kon borom Mbàkke Kajoor waaye nag Seexal Xaddim ci boppam la tax loxo loxoy Mbàkke Kajoor ak cëru Mbàkke Kajoor mujj ci siñ Mbàkke Ibra ak njabootam loolu Seexal Xadim ci boppam moo ko dox jaare ko ci magam siñ Mor Jaara ba ci ñecca suuf ñépp ñu ànd ca ak moom ci ñu dëppoo ci jébbal ko dëkk bi loolu moo tax comme ni ko sëñ Bay waxee ca yoonu mujj woowu nga xam ne tey moom la ànd ak maam Thierno dem jëli ko Eh, da koo wax ne ko suñ yandu galangal da koy nettali da ko wax ne ko xam naa li taxankat kat eh, ngàntul li dooma gàntul dara sax waaye dafa am loo doon bàyyi xel ndax danga jàpp ne àdduna lu gudd la te mën naa am lay sama diggante ak yow mën naa bañ a doon diggante njaboot yi ñëw ci kanam xëy na ngay ragal rek lii bu ma ko defee ëllëgati si biir ñeneen mën nañoo ñëw dindi ko xatal fi sa njaboot waaye loolu nag gannaaw bu ma ko ñaanee sunu borom ba may ma ko ba noppi it mboolem ku ma bokkal sëñ Mor Anta Sali juboo naa ci ak moom ba illaa yow mi diine kenn ci kenn ci koo xam ne kuy dindi loola du am loola moom ñaan naa ko sunu borom ba ba ba ba maye may maye na ma ko ba àggal loolu mooy mooy mooy bi mu koy bi mu koy bi mu àndee ak moom eh, ci yoon wu mujj wi ak maam Thierno pour ñu jëli ko pour andi ko fii <coughs> muy loo xam ne tey. Eh, lu yéeme la waaye eh, la ca gën a yéemee ti dëgg dëgg dëgg ci loo xam ne tey ay mbóot la yoo xam ne du lu ñuy mën a wax ca kaw waaye jataay la boo xam ne muy nganu Touba ga ci bi sëñ bi eh, doo ko sañ ci Touba te sëñ Mbàkke Ibra ñëw fa te mu génn kër gërëm gii ci tuubaa muy ci jumaa ji jox ko ko mu nekk fa ak diir ba fa am ak lañ fa waxtaane ci awaniiru yoon wi ci loo xam ne sëriñ bi dafa xëy bis ne ko dafa am ndigal lu bàyyi ko ci boromam mu xëy ne ko na nga xëy ci sa waajur woowu kat am na yetti yëpp yum la digal yoo xam ne na nga xam ne ndigal la lu ma la digal jaarale ko ci moom loola lu baree bari ci awaniiru yoon wi ak lu baree bari ci ak doxiin wi euh, ci ndigal yooyee la aju muy lu yaatoo yaatoo ba loolu ma waral sax bi mu dëppee e, muy li waral bis bii tey e, fan yim fi am e, sant si ko wax nañ ne sant si ko ci boo ndax ndigal la am na ci lu bari loo xam ne lu ci aju ci géej gi ak buy dem lim fiy batale ak ak ak li aju ci mbir yoon wi yëpp loola daf caa bokkan ca lam waxtaane woon ak moom muy diggante boo xam ne bu bu yéeme la bu xóot lool boo xam ne fa tabaarakallaahu e, e, dëkk bi rek e, firndeel na ci ak njabootuk sëñ mbakki yi bi gi nga xam ne lépp ci loxol sëriñ bi la ñu nekk muy ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen ñëpp génnuñu loxoy sëriñ bi ñoom ñëpp sëriñ bee leen tarbiya moo leen tarxiya moo def ci ñoom li mu ci def muy góor ñi ak jigéen ñi ñëpp te ñoom ñëpp di ji ay ñoo xam ne fa tabaarakallaahu ay tànneef lañ e, yoo xam ne bokk na ca lam ko lam ko ñaanan ca bis boobee ci luñ mën a wax mooy njaboot gi nga xam ne kat am naa ko te ñuy say rak lii ma yëg na sunu borom subhaanahu dana la ko defal ci ay xiiwal ak i teraanga damay bañ sama diggante ak yow ak fa nga leen fa fa nga xam ne fa nga leen fa teg ak na nga leen def buñ àggee ca loola nga jox leen ca loo xam ne dana jaar seen diggante dana bare bare bare bare ba fàbbi leen ba jaar seen diggante ak li nga xam ne eh, mooy li ñu war a nekk waaye bëgguma itam eh, ñu nekk ñoo xam ne dañuy wuti fenn lenn bëgg naa daal bokk na ci li nga xam ne ñaan naa ko sunu borom te nga yóbbaale ko ci liggéey boobu ngay war a liggéey mooy ñoom ñëpp nañu nekk ñoo xam ne ci siraatal mustaqim lañuy lañuy la ñuy sax ñoom ak képp koo xam ne ku soqi ko ci ñoom dara loo xam ne lu ngor wala diine maanaa dana ko xeebe nit maa ngi ñaan nga loolu ngay wuti nga fàggulaa leen te bu am ci ñoom bu am ci seeni doom waaye nag bu ñu tumaranke bay tax ñuy jaay seen ngor di ko wala seen diine di ko jëndee ab am am waaye buñ am nag loolee muy ñëw te bari lool bu leen ca jox loo xam ne dana tax ñu bew ba fàtte yàlla loola bokk na ca la nga xam ne wax nañ ne ca jataay boobee ñaanal na ko ca ba moo moo waral tey fa tabaarakallaahu <laughs> tey tey tey ni ni mbir yi demee mu demee ni te loolu lépp gis nañ ko muy loo xam ne tey kon ku ca yàlla boole ah loola kon war ngaa góor góorlu bu baax a baax sante ko sunu borom subhanahu wa taalaa ndax loola ñu waxan eh, eh, fa tabarakallahu loolu am na ndax kenn ci koo xam ne eh, ku ñàkk barke wala nga tumuranke bay jaay sa ngor wala sa diine di ko jënde lenn amut waaye nag kenn ci koo xam ne itam ku ci am benn am am boo xam ne buy jaar sa diggante ak sa diine bay tax ngay bew loolu it amut kuy ñaan googu ñëpp ñaan googu itam moom lanu ñu fàggu lan Eh, kon nag ku ci bokk rek war ngaa góorgóorlu bu baax a baax eh, te fexe ba sàmm loola eh, te dëkk bi itam di barab bi wax dëgg yàlla danañu profité ci occasion bii cër bu toll nit bii képp koo xam ne seexal xaddim faggul na la ko sa maam faggul la ko war nga koo fonk ndax barab boo xam ne kat wax nañ ne fa la yoon mu juddoo la sunu borom la seexal xaddim jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci delloosiwaat sunnaam sii fii la ko matérialisé fii la indee ñett yëpp yooyu moo wax yatloo alim ayat yi wayu sakki imba yu alimul kitaab wal ikmata fii la ci daara jii la indee yooyu yëpp ba àggal ba ci juddowaat lépp itam tasaaroo fii la juddoo loola kon képp koo xam ne ku yàlla may barab boobee di sa barab war ngoo ko fonk bu baax a baax waaye daara ji nga xam ne moo symbolise daara jooju it war nañ ko gën a fonkaat bu baax a baax xam ne kat daara ji moo sos daara yëpp lépp lu juddu ci biir yoon wi ba tasaaroo ba àgg féppit fii la juddoo kon nag ñu gën a fonkaat dëkk bi bu baax gën a daara ji bu baax gën a fonkaat bu baax a baax a baax te euh, euh, duñ ko fanke lu dul rek ci ci ci anam yi nga xam ne mooy yett yi nga xam ne moom la sëriñ bi delloo siwaat te bi mu fi jógee mu bàyyee ko njaboot gi kon ñi ngi sant ñëpp euh, di di gërëm ñëpp di rafetlu jataay bi bu baax a baax a baax di la sant bu baax sëriñ Bay Eh, muy lu am solo di sant itam bokk yi nga xam ne itam eh, ñoonu cërale ci li nga xam ne ñoonu bokk ñoo ko bokk waaye daal ñu gën a tërkiis bu baax a baax daal ci dëkk bi ak ci daara ji gën a tërkiis bu baax a baax ci dëkk bi ak daara ji waaye gën a tërkiis bu baax itam ci loolu moo waxan ci mooy wayu sekki im ji ndax crise bi gën a metti daal fii toll mooy jikko yu yàqu yi jikko yi yàqu yi ak melokaan wi te dara defaru ko woon lu may wayu sakki im jooju ñu dellu siwaat wayu sakki im jooju nag mi ngi bëgg génnaat kon nag nanu fexe ba dellu siwaat ko ba njàngaleem alxuraan mi ñu boole ci yar njàngaleem xam-xam ñu boole ci ab yar eh, te yar bi mooy jaare ko ci njàngaleem sëriñ bi rek ak doxinu sëriñ bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aujourd'hui dafa am phénomène yu yees yoo xam ni dafa maa jaaxal maami sëriñ bii. di sëriñ Balla faaxu jë man yàgg damaa dem barab bi e, déqale waaye jamono yi dama faa dem gis fa ñetti barab yu ñu def miir bu gàtt wax ni barabu Ahmadou faaxu jë barabu Ngura faaxu jë barabu Balla faaxu jë man daal loolu jaaxal ma lool sëriñ Balla Faaxuje maami sëriñ bii dammeel Amari Ngoone Ndeel a Kumba bari na ci bindkat yi ñuy wax ni mbakke ñu ngi ko sanc atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñu ngi ko sanc mill sept cent soixante-dix te loolu di njuumte ndax dammeel bi nga xamante ni moo jox lew maam maaram atum junni ak juróom ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk la doon dammeel dat bi ñuy bind di ko wax moom toog na ñaar fukki at doog doon dammeel muy dammeel Amari Ngoone Ndeela Kumba moom moo ñëw 1790 ba mille 1796 mu di ko xeex ak sëriñ si xeex ba ñu ca gënoon a siiw di njabootu sëriñ kokki maxtaar nëmb sëñ ahmadou faa xujja sëñ ngura faa xujja sëriñ balla faa xujja ak seen doom sëriñ kokki njaga isa maa ngi leetar bopp mu ngi sama téléphone bii boo xam ne sëriñ balla faa xujja xare bi ñu mujj xare muy xare bongooy moo ko bind almaami abdou xaader kan leetar baa ngi man ngir mu ñëw jàppale leen ci xare boobu xare boobu yàlla dogal na sëriñ balla faa xujja ca la wàcc ab liggéey en 1796 magam sëñ Amadou Faxuja ak sëñ Ngura gannaaw xare ba àndoon nañu ak almaami Abdou Khader Kan dem Fuuta waaye ba ñu eggee dañ fa bàyyi sëriñ kokki njaga isa ñoom ñuy dellu si bi ñuy dellu si ceddo yi ña ngi leen kar fa ñuy wax loofe ca gannaaw kër Momar sar foofe fa la ñu leen faate sëñ bi ñooñu seeni seeni barab nes ko mën a indee déqalee ji pour nit ñi di ko fi seen bi mooy njaañu njaga dem naa fa ñu wan ma barabu soxna Faati Jaara di rakki sëriñ bi nga xamante ni bi sëñ Mor Anta Sali nekkee Saalum la ñuy wax ni ay naar ñoo ko jëloon ñaari barab yi ñu defar defar ci pavillon boobu ñu ni bii soxna Faati Jaara bii sëriñ Daam Ahmadou Faati rakki borom daarul mootee te loolu ci at yi rek lañ ko def mais sëñ bi loolu lu jar a saytu la nag ndax bu ñu bindaatee histoire sëñ bi euh, sëñ Balla Fakku Dia 1796 nga jekki ba léegi te ba fi ñu toll ku dem fekk ko fa may sëñ bi loolu nag kilifa yi war nañ cee wax c'est des phénomènes yoo xamante ni bi dañuy réécrire histoire li tubaab bi di wax loolu daal dama ne woon dinaa la ko gaaral mais loolu maanaam barab yii ña ko fa def te sëñ bi Guèye nekk fa biñ ko fi defee léegi xanaa ci juróomi at lay war a toll ba tax na daal yooyu yooyu ñu dugal ci mboorum yoon wi daal maa ngi jégg looy war nañu cee wax jaajëfal nañ ñu àndaloon ci wi sëñ Baye dañ ci bëggoon lépp wax dëgg yàlla nañ ko ku ne xam na ne ku ko teewlu rek bari na lool loo xamee ne si lantoon na ci yow wala leerul woon ci yow te it leer na bi nga dégloo waxtaan wi naka noonu it sëñ Xaadim kon ñu sant kilifa yi nga xam ne si ñoo teew ci jotaay bi ànd koog ñun boobu ba léegi kon xam ne jotaay bi yàgg na ñu ngi leen di sant bu baax wax di leen gërëm waaye di leen jéggalu ci jotaay bu yàgg bi. xëy na waxtaan nañ lu toll ñaari waxtu yoo xam ne si am solo gi waxtaan yu am solo sax moo tax nit ñi yàkkamte wuñ ko ni ñu ko war a yàkkamte waaye sant nañ bu baax di am mbégte bu baax a baax di santaat waa daayira bi ñëpp rawatina ñi nga xam ne si ñoo fànn gi ci mooy wàllu saxaafa mooy culture bi. ak ñu war yor wàlla organisation be li ci aju yëpp rek ñu leen sant di leen jaajëfal bu baax di ñaan yàlla mu bay ñu fekk ko at yu bëree bëri kenn bañ a manqué wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin